wa ummatihi wa sallama taslima laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah allahuma inni ushhiduka wa ushhidu xamalata arshika wa malaikataka wa jamica xalqika annaka anta allah laa ilaha illa anta waxdaka la sharika lak wa ashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka wa xayru xalqillahi ajmain salawatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa raditu billahi rabban wa bil islaami diinan wa bi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiyan wa rasulan wa bil qur'ani anisan wa bil kaabati qiblatan wa in ittaxadtu llaha waliyan wa iblisa aduwan wal mustafa wasitatan wa jamia al ixwatan assalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu yéen mbokk jullit yi baaxoo ànd ak fii ci Touba Argentine TV ajjuma ko jot ci seen émission bi tudd Labirante ñoo ngi leen nuyu lu lu bari di leen ziyaara di leen baal xaq di leen baalu xaq di ñaan yàlla su boroom yàlla na ñu mboolee jéggal te dolli ñu tawfiq di jagleel ab nuyoo bu tedd di ko jëmale ci mbooleem mbokki taalibe yi nekk fii ci réewum Argentine di jël nuyoo boobu ak ziyaara boobu rek di ko teg ci loxob jëwrin sëñ Mor Talla Sall mu jot ñu ko mbooleem mbokki taalibe yi ci des ni ñu ko baaxoo ajjuma gu jot ñu ñëw di labirante di yeetante di dolli konte tey jii dañoo tàmmoon tomb boo xamante ni lu dëppook jamono la ñu war ci waxtaan kenn ku nekk war cee joxe sa euh, say laabire say nasaayax muy tomb bi ñuy tuddee alhijratu xayri charia ci ay ci langue arab tubaab yi di ko tuddee immigration clandestine wolof yi di ko tuddee eh, mbëkk mi daanaka mbëkk mi la ko lañ ko lañ ko lañ ko gën a xamee baatu wolof bi dëgg-dëgg daanaka mbëkk mi lañ ko waxee ni ko ñenn ñi di wooyee Barça wala Barsaq tey ci émission boobu ci ci waxtaan woowu ci lañ fas yéenee jëmale suñuy kàddu ndax ku ne xam ne ne semaine bii ñu génn wala ñaari semaines yi ñu génn walla après maggal ba léegi. coow li bari na ci lool mbokk yu baree bari rawatina sunu réew ma réew yu Afrique yu bari sax lañuy wax waaye sunu réew mu Sénégal mooy numéro un mooy ci jiitu ci ñi nga xam ni ñooy jël gaal gi di jaar ci ndox mi bëgg a dem ci continant bi ñuy wax réewum Europe te réew man ci gën a tàmm di réewum Espagne ngir jàpp nañ na moo ci gën a jege mbokk yi. Eh, loolu des waras na ciy jàngat lu bare bari ndax phénomène la boo xam te bu danger la ci jamono jii ñu toll xëy na aw xal la woo xamante nii dana jekk-jekk ngelaw li taxaw mu xaw a gëmmu ba ñëpp yaakaar na fay na waaye léeg ngelaw li jaar fa boyalaat taal bi tukki nag bu ñu ko waxee eh, immi eh, eh, mbëkk mi sax laay wax mbëkk mi bu ñuy wax immigration clandestine bu ñu koy wax bu nekk daanaka mooy nga jóge ci sam réew dem ci réew moo xam te ni yoon wa nga war a jaar muy yoon wu legal wu légitime jaaree woo ko ca réew ma nga jëm teg ay luwaam ne ku am ku mat ku matale charte yi mën naa dugg ci réew mi te yow matale woo charte yi ba noppi nga bëgg a dugg ci dugg dugg ci réew ma loolu mooy moom la ñuy wooyee immigration clandestine. mu doon loo xam ci nag yàgg na ci jamono nekkuñ ba diggante at yu mujj yi rek mooy doog commencé waaye at yu mujj yi ci la gën a fees bu njëkk nit ñi daan nañ ko def waaye nañ ko daan defee ak nii ñu koy defee ji jii euh, jamono jii ñu toll ak jamono yi ñu weesu wuute nañ ndax ku ne xam ne ne at yi mujj yi li ci des ci géej gi ci ay bakkan doy na waar lool lu mat a jàngat la xool responsabilité yi. kenn ku nekk lan moo ci wàllam ndax ku ne xam na ne kuy tukki ku nekk dafa am lu la tax a jóg nit dana tukki ngir wuti xam-xam nit dana tukki ngir wuti yàlla nga xam ne bërëb ba nga nekk danga fa doon doon jaamu yàlla noonu yàlla yi xatal la fa xatal goo xam ci nii mayetuñ la fa na fa war a jaamu yàlla nga amee ko fa jaamu jooja ba tax na yow sag jaamu yàlla nga matale ko dana tax nga laxas bàyyi fa suuf soosa dem suuf su gën a yaatu ngir e, la war ci sag jaamu yàlla nga xam ne yow jaamu yàlla dong dong dong dong dong moo la indi ci àdduna nga mën ko faa defee ni ko alquran waxe yaa ibadiya allazina amanu inna ardi waasiatun fa iyaaya faabuduni yéen sama jaam yi yàlla yéen sama jaam yi kat sama suuf si man yàlla suuf su yaatu laa yor waaye nag jaamu ma rek moo tax ma indi leen ci kaw suuf si fépp foo ngeen ma mën a jaamoo na ngeen fa toog fépp fu leen xatale ba mën leen ma faa na ngeen laxase foofa xool fu gën a yaatu ci yéen fu ngeen ëppee jaamu ngir mën ma faa jaamoo loolu bokk na ci li waraloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallama gàddaaye woon makkatal mukarrama jëmi ca. madinatul munawwara bokk na ci baat bi ñuy gën a jëfandikoo ci eh, hijra sax mooy almuhajiruna alquran andi eh, na ko ay yoon yoon waaye ba ñu demee ba madina ñan fa fekkoon ñooñu la ñuy woowee al ansar lil fuqaraa al muhajirina allazina uxrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwanan wa yansuruuna allaha wa saadiqun ba cay aaya boo naan walladina tabawwau daara wal imaana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim xaajatan mimma utu wa yuuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa kon immigration yàgg na donte immigration yooyu boobu ñi nga xam ne nii muhaajiroon yi moom lañ defoon ànd ak yonte bi sallallahu alayhi wa sallam jóge a jëm Madina doon immigration clandestine ndax ñoom boobu ñu ngi jugoon ci biir réew mi cib dëkk bu ñuy wax Màkkatal Mukarrama jëm ci biiran dëkk bu ñuy wax Madinatul Munawwara ban àggee ñu fekk fa ñoo xam te ni dañ leen dalal yaatal leen lool ñu leen di wooye alansaar bukkut ak nii ñu koy defee nag jamono jii ci e, sunu diggante doomi réew yi ak réew yi ñu jëm nga xam ne bu ñuy jógee ñoom la yëkkati woon muhaajiroon yi àndoon ak yonent bi yëkkatiwul doomi Sénégal yi jëm Espagne ansaar ya ñan fekkoon Madina nañ leen gàttandu woon teertu woon leen bukkut ak ni. tubaab yi di teertoo immigration euh, immigré yi nga xam te ne dañuy def immigration clandestine ndax xam ngeen wayu si woowu waa Madina wayeloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naa ko talaa al badru alayna min saniyati lwadaa'i wajaba shukru alayna ma daa lillahi daa'i ayuha almabuusu fiina jita bil amri almutaa'i muy waaye woo xam ne dañ ko doon wayal ak ña mu àndal doon leen dalal di di leen tàllal seen loxo di leen yaatal ci e, ne leen agsi ngeen seen kër bu ñuy wax tukki nag niñ ko leeral léegi e, immigration clandestine mooy jóge ci dëkk jëm ci dëkk boo xam ci ni da ngaa war a am charte yoo matal te mataliwoo ko bokk na ci xeeti tukki yi tukki boo xam ne nii dangay tukki ngir wuti teranga ngir wuti alal ngir wuti àdduna ak tukki boo xam ne da nga tukki ngir sauver sa bakkan ndax danga nga nit dana nekk ci dëkk sax ba ab xeex am fa nga ngay ngay rawale sa bakkan tax nga génn réew ma ma dem ci beneen réew bu demee ci réew yooyu ñoom bu waa doon leen wooyee immigré immigré clandestin ay ay réfugié lañ leen lañ leen lañ leen wooyee. nga xam ne dañuy daw làqu ay daw làq nañ waaye nit dana jóge cim réew it maanaam di sàkku ji xam-xam xam-xam boobu muy sàkku jaral ko la koy sàkku alal lam ko jaral nga xam ne bu fekkee da ngaa da dugg ci am réew ñu ne la réew mi boo amee nangam ak nangam ci nga war a dugg yow sàkk xam-xam ba fa nekk sàkku ji ko dana tax nga def effort yoo xam te ni dana tax nga dugg ci dugg ci dëkk ba loolu nag bëreetul lu ñu koy gis jamono ji donte amoon na bu bu njëkk it waaye jamono ji moom. ku sa bakkan jaral nga jël gaal gi e, ngir wuti xam-xam e, dégguñ dégguñ ko dégguñ ko mukk ci dégg ci dégg déggukaay yi gisaguñ ko mukk ci ci ci ci ci gisu gisukaay yi donte it e, xam-xam lu am solo la ci dundu doomu aadama dana tax décision boo jël nga jàngat ko ba xam lam la mën a jural. da nga xam euh, ijaabiyaat yi ak salbiyaat yi muy li euh, décision bi nga jël wàllu euh, positif bi ak wàllu néga néga négatif bi da nga xam dana tax nga boo ko boo ko jàngatee ci xam-xam décision bi nga jël dana dana dana la xam-xam dana la leeralal ba xam ne la décision bi kan moo gën. ndax yaakaar naa ñu bare bare ñiy jël gaal yi buñ jëfandikoo woon xam-xam bu leer nañu ak xel mu rafet ñi ci bare bare duñ ko jël muy ñi des ci yoon yi ak ña ña ña ña àgg sax laa wax bala ñoo dugg ci e, thème bi dañuy jaale mbooleem ñi nga xam ni seen i jege doom seen i rakk jarbaat seen i ak ñi nga xam te ni maanaam ñëpp suñu mbokk lañ ndax ñoo bokk Sénégal. rawatina ñi nga xam ne ni ñoo bokk di jënd diine di wax laa ilaha illallah ñoo des ci eh, ci yoon wi ñu ngi jaale ñëpp di ñaan yàlla su borom eh, ñi nu fi bàyyi yàlla woyofal mettit wi nekk seeni xol eh, ñoom ña jiitu jiit yàlla su borom defal li ñu yërmande ak njëgal ñàkk mukk ci jaale googu ma tudd ci ma tudd ci mbokk yu baax yoo xam ne ni wax dëgg yàlla. at mu jot dañuy fekk Touba di jóge dëkk bu nekk ci ginnaaw Mbuur ñu di ko wooyee Pointe Sarène euh, yëg naa ci ay xibaar ne am na mbokk yoo xam ne wax dëgg yàlla ci ñi des ci yoon wi ca lañ ca lañ bokk di dëkk boo xam ne nii dem naa fa ay yoon yoon ñu ay nit ñu baax nit ñu gore nit ñu bëgg lu baax euh, ñu ngi leen di massawu di ñaanal di leen ñaanal yàlla ña fa seen doom des. ak ñi nga xam te ni xëy na seeni i xamee la ñu woon doonoon seen i dëkkandoo yàlla euh, woyofal métti yi ci seen i xol te xale yooyu nga xam ne ñoo des ci yi yàlla leen yàlla su borom defal euh, yërmande ak jéggal maa ngi dégg sax ñu ne dimanche gi ñu jëm ñoom dañuy def euh, de prière ci seen jumaa jooju foofu ci pont ngir ñaanal mbokk yooyu nga xam ne seen bakkan dafa des ci yoon wi mbooleem ñaan yu ñu fa ñaan yàlla leen ko yàlla nangul ak mbooleem mbokk yu bari yi nga xam ne wax dëgg yàlla xam nañ ne Euh, waxtu nekk boo duggee ci Facebook bi da nga gis euh, tàgg yi bari lool ñoo xam te ni wax dëgg yàlla euh, ay ndaw lañ di ndaw yoo xam te ni dañoo toll ci si njëlbeen ak seen ak dund waaye nag danañ ci jàngate bu baax a baax tabaarkalla ñoom ñooñu ndaw yi nga xam te ni jamono ji ñu ngi dund te seen xel nekk ci jël gaal yi lan lañu war a xalaat. bala ñoo jël gaal gi seeni waajur yi nekk ak ñoom lan lañ war a waxtaan ñoom seeni waajur yu góor ak yu jigéen seeni mag seeni rakk seeni soppe seeni xarit ndax ñoo ñëpp ay am nañu responsabilité ci wax ak wax ak wax ak wax ak ñoom li ma doon wax léegi xam-xam boo koy jëfandikoo ak xel mu rafet di ci def ko ab lampe boo xam ne ci ngay niite décision yi nga war a jël doo jël mukk décision boo xam ne danga ko réccu ndax sëriñ bi da ko wax bil tax taxya qulubun qattu maa arafat min qablu mal farqu bayna al xaqi wal mayni nee na am na xol yoo xam ne ndey bu njëkk dañoo deewoon dee deegoo xam ne nii mënuñoo xàmmee lan mooy dëgg ak lan mooy euh, lu dul dëgg xol yooyu nag la ko mën a dekkil dundalaat ko xam-xam rek la moo moo moo ko man wax ju ju mat a leeral la ndax xol dana dee xol boo xam te nii xel ma du xalaat dara loo xam te nii ci xel xam-xam bu leer la koy teg wala xel mu rafet moo ko xol bu dee ñoo yam ndax décision yoo xam te nii lu ko mën a alag rek lay la la la la la cay jëlee ndax décision ya ci ak lëndëm la koy jëlee bu fekkee xol boobu xam-xam da caa nekk nag décision bu muy jël ci ak leer la koy jël la ko la ko la ko la koy jëlee moo tax sëriñ bi waxee ko noonu ne bil ilmi taxyaa qulubun qattu ma arafat min qablu ma alfarqu bayna alxaqi wal mayni waaye waxaat na ko ci e, e, beneen bayit sax mu ne wal ilmu lin nafsi nuurun tastadillu bihi an ilxaqaiqi mithla nuuri lil ayni nee na xam-xam ni nga xam te ni say bët boo nekkee fu lëndëm doo gis boo nekkee ci ak leer say bët di gis nee na xam-xam noonu la mel ci am xel noonu la mel ci am ci ab xolit ab lamp la boo xam te ni day leeral xel mi di leeral xol bi ba nga xam te ni décision bu muy jël rek décision boo xam te ni lu mu xam la ndax boo nekkoon ci lëndëm di jàpp dara yi da ngay rek léeg nga daj ko léeg-léeg doo ko daj xam-xam lu am solo la ci dundu doomu aadama bi boo ko amee yow bala ngaa jël décision bi jàngat ko ci xam-xam doo ko jël boo ko amut fexe jegeel ko ko ko ko am bala ngaa jël décision nga laaj ko nga laaj nga ko ca nga laaj ko ca. te la ca wax it te tegu ko ci bakkanam ba tegu ko ci bànneexu bakkanam nga doyloo ko te xam ne eh, lépp lépp décision boo jëlee xam-xam moo ëpp solo boo ko boo boo boo jël te ko ci xam ko sëriñ bi waxoon rek waxalam bi annama laa wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira wa bihima yafdulu man qad fadula la bintisabihi liman qad yaxtala eh, sëriñ bi dafa wax foofu ne ci xam-xam ak diine la nit ñi di rawantee waaw xam-xam nag bu ñuy wax mooy xam-xam boo xam te ni borom da koo xam ba noppi jëfe ko ndax xam-xam boo xam te ni jëfewoo ko te euh, doo jël benn décision wala ngay def dara ba noppi jiital ci xam boobu jàngate ko xam-xam jëf ji boobu waa du doon jëf ju tegu ci xam-xam boobu nag yàgg euh, jëf ja boo ko tegul ci xam-xam ba yàgg ku xamul dara yéen a yem yéen yéen yéen yéen yéen yéen yem rek kon sëriñ bi foofu li mu wax nee na ma ngi ko waxee ca tirim boobu ñuy wax nax ju qadaayil xaaj yi nee na doomu aadama yi ci xam-xam la ñuy rawantee ci la ñuy gënantee it xam-xam ak diine xam-xam ak diine ndax diine ju tëriwul ci xam-xam wax dëgg yàlla ak xam-xam boo xam ne ni ànd ak diine benn amu ca njariñ waaw kon xam-xam bu ànd ak diine na mu ko waxoon ci masaalikul jinaan inna allazi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afnal funun lu mat a bàyyi xel la mbokk yi kon nag ni ñu ko waxee woon léegi immigration clandestine lu lu lu tasaaroo la ñun nag li tax ñu jël ci eh, waxtaan wi tey ji jagleel ko ko bokk na ci li nga xam te ni suñu mbokk sénégalais yu bare bare ci semaine bii wala ñaari semaine yi ñu génn des seen bakkan rot na ci géej gi ci loo xam ne ni wax dëgg yàlla lim bi ci faatu moo ëpp lim bi faatu ci feebar bi ñuy wooyee corona coronavirus te feebar bi bi mu tàmbalee léegi daanaka mën na juróom-ñetti weer ci réew ma te lam fa rey ci juróom-ñetti weer yi li e, mbiru gaal yi rey ci e, ñaari semaines yi moo ko ëpp donte coow li yi nga xam te ni état bi ak gouvernement bi jëloon nañ ko ci. E, jamono ji feebar euh, commencé bu ñu ko jëloon ci wàllu immigration bi solution mën naa am ndax xale yuy jël gaal gi it ñàkk de mànk de moyen bokk na ci li leen koy jëloo ñàkk lu ñu def ci réew ma am lu la war te mënoo ci dara war a def dara te defoo dara toll ci sa digg ndaw toll ci digg kàttan am doon as gor war a def dara te te defoo dara donte lool yi du lay ngir nit ki euh, jël gaal goo xam ci nii daanaka ñetti gaal yu dem ñaaree daanaka ci yoon wi lay lay lay lay des te gaal goo xam te ni yow ba nga ci ba nga ci dugg xamu ñaata nit ngay ngay àndal am na ñoo xam ni maanaam ku seetaan vidéo yi fan yi ci internet bi da nga dégg lu ne ndax am na ñoo xam ni maanaam lu ne gis nañ ko ci biir géej ci biir ci biir géej gi daanaka lu xeeti jom mi sax dañ ko def ndax da nga am na ci ñoo am na vidéo bu ma seetaan boo xam te ni am na ko ciy nettali nee na dem na ba ci biir sax géej gi ñuy gis yoo xam te ni wax dëgg yàlla. Euh, du yëfi nit wala ñu nit di wax ak ñoom loo xam ci ni du waxi nit loolu nag mbirum géej la géej moom yàllaa ko yàllaa yàllaa ko yàllaa ko moom moom rek moo xam la la la ca la ca biir am na loo xam ci ni boo ci jaaree ba jàll ba àgg fa nga jëm sax am na luy des ci sa xel mi loo xam ci ni maanaam du la bàyyi ba keroog ngay eh, ngay ngay ngay génn ngay ngay génn àdduna te mbokk yi nit ku nekk bakkan dafa foor bakkan dafa foor nit ku nekk war nga caa sàmmante lu baree bare bare bare war nga caa sàmmonte yàlla ma ko sàkk te bu ma koy sàkku tàkku euh, tagguwula la tàgguwul sa waajur wa nga xam te nii xëy na lu na dégg nga ko ca moom ba tax nga jël décision ba nga jël tàgguwul kenn ci ñi nga xam te nii ñoom ngay ñoom ngay seet te wax dëgg yàlla euh, ba kan ba nga xam te ni yàlla su borom jox na la ko du alali àdduna ja nga xam te nii moom nga daw di wuti mën naa wecc bakkan boobu boo ko amoon bakkan kenn di ko jënd te yàlla da ko fonk ba nga xam te nii da ciy tëkku ay tëkkuwaate yu baree bari ci biir alquran bokk na ci lim ci tëkkuwaate ak digal digle yi mu ci joxe bokk na ci ne wala taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp inna allaha kaana bikum rahiman bu leen rey seen bopp mooy buy def bul def loo xam te ni yow sa bakkan mën nga ko ca ñàkk ci ñàkk ga ngay ñàkk sa bakkan ci sabab ga ci yow lay bàyyi ko kon yàlla dafa fonk bakkan euh, te loolu ndigal la lu mu joxe ne euh, doomu aadama yi seen dund gi kat joxu leen ko seen bopp kon nag bu leen ko xañ seen bopp man yàlla mi leen ko jox maa leen ko jox te maa leen ko war a xañ kon nag bu leen dugg ci loo xamante ni da leen koy xañ am na ñoo xamante ni nag xëy na euh, immigration clandestine bi jàppuñ ko lu jàppuñ ko lu garaaw ndax dañuy jàpp ne mooy ne euh, transport transport la waaye nag ku xool yëf yi ni mu demee ak euh, ñaata nit ñoo ci faatu kon ku ne xam na ne wax dëgg yàlla am na yeneen moyens yu fi nekk yu gën a siir yu gën a wóor yu ëpp sécurité ndax bato ngi fi bato moo gën a wóor fuuf gaal yu ndaw yi ñu jël te euh, ñi koy jël léeg-léeg ñu xool sax météo bi ñu ne leen semaine bii kat wax dëgg yàlla géej gi du neex. waaye dañ jël risque yooyu xam na géej gu neexit euh, ñu jël risque yooyu euh, dem yóbbu seen bopp yóbbaale yóbbaale bakk yeneen yeneen yeneen yeneen bakkan am na ñoo xam te nii am xam nañ géej gi xam nañ fa nga xam te nii fa la vague yi di euh, di yéeg ak wàcc yi yàgg nañoo dugg ci géej gi di napp ak yu yu yu yu yu ni mel am na sax foo xam digg naa daanaka jéggi siraat lañ koy tudd ñoom nga xam daanaka boo fa àggee boo ko jéggee rek daanaka. man nga xam ne yow daanaka mucc nga ci euh, lori géej gi waaye foofu foofu moom nii waa ne ku koy jéggi ndax ñi koy jaar dafa dem dégg naa léegi ñu def ñaari fan wala ñetti fan sax bëgg koo jéggi te duñ te duñ ko mën te a jéggi kon nag loolu mat a bàyyi xel la rawatina boo xam te ni géej gi moom du tàggu kenn buy euh, mer wala mu muy muy nëbbu aw meram bokk na ci ni ma koy waxoon léegi yàlla dafa diggal doomu adama yi ne leen bu leen rey seen bopp wala taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp kon bul dugg mukk ci loo xam ne yow day leer na fii nga jaar semaine bii nga nga jëm tey jii wala suba sa bakkan mën naa mën na ci des te ñu am na ñu la ci jiitu woon ñoo xam ne démb seen bakkan des na ci des na ci boo ci dugg yow tamit wax dëgg yàlla loo sukkandiku sukkandiku ci suñu borom wax dëgg yàlla war nga caa war nga caa war nga loolu te xam ne am na yeneen moyens yu fi nekk yu ko yu yu ko yu ko gën a wóor waxtaan wi ñuy waxtaan ci wàllu immigration nag taxul ñu ne. dañoo wax kenn ne ko bul bul bul génn Sénégal xam nañ Sénégal la fa nekk jafe-jafe ya fa nekk ak it wax dëgg yàlla na fa ndaw yi bare te amuñum xëy te war a def dara te defoo dara dafa metti li tax ñu indi waxtaan yi du dara lu dul laabirante ci kuy génn senegal nga xool moyen boo xam te ni moo gën a wóor ba nga xam te ni sa bakkan mën na caa bañ a des nga génn nga nga génn Sénégal sa teraanga bu fekkee yàlla da koo jaarale da ko da koo def. sa wërsëg bu fekkee yàlla ko def ci def ci bërëb bërëb boobu fokk yàlla dana la yombalal lu la fa yóbbu ba sa wërsëg boobu nga jë nga nga nga jëli ko nga jëli ko kon euh, li tax ñuy indi waxtaan wi kon nit ki euh, sàmmante ak dundam sàmmante ak bakkanam te ku ne xam na ne wax dëgg yàlla bakkan dafa foor lool bakkan dafa lool lool na bakkanu euh, ndaw ñii nga xam te wax dëgg yàlla. ñi ngi dem fi seen waajur ëpp yaakaar ci ñoom fi leen lislaam gën a soxlaa fi leen àdduna gën a euh, soxlaa fi la ñuy bàyyi àdduna bàyyi fi ay responsabilités yu yu yu yu yu rëy rëy bàyyi fi e, naqar woo xam ne nii wax dëgg yàlla kenn mënu ko fàtte ndax nit ki génn àdduna ñu defal la bàmmeel say waajur man di dem ci bàmmeel ba di di dafa taxaw di la di la fa ñaanal ak say mbokk ak say xarit sax dafa métti waxuma laa nit koo xam ne nii amul ba amul bàmmeel nag loolu lu ma ta bàyyi xel la. lu ma ta bàyyi xel la wala an anfusakum bu leen rey seen bopp beneen aaya ci alxuraan yàlla ne wala tulqu bi aydikum ila tahlukati bul xool loo xam ne nii maanaam sa sa dund mën na faa jaare nga di dugg loo xam ne nii nga nga nga nga nga nga di ca nga leen bu leen bu leen rey seen daanaka weneen waxiin la ci geneen anam wala tulqu bi aydikum ila tahlukati bul fekk loo xam ne nii euh, ab ajoor ajoor bu mel ne Moustapha safaalo nga dem naa da ngay bëgg xuus ci géej gi eh, jaare fa eh, dem Europe wala dem Espagne te yow waxuma la bu gaal bu gaal gi eh, muccee sax waaye nekk ci ndox benn fan sax mën a koo mën a mën a koo supporté am na ñoo xam ne nii bu gaal gi muccee sax nekk ci ndox benn fan wala ñaari fan sax mënuñ ko mënuñ ko bu gaal gi di daw une heure temps deux heures temps ñu tàmbali ñu tàmbalee di neer doon ab kaw kaw boo xam ne nii yow soo dugg ci mosoo dugg ci sax ci piscine mosoo mosoo mosoo mosoo caa mosoo caa rek. dégg gaal yi nga ne da ngay jël dangay ngay jël ngay jël gaal loolu mooy li mat li mat li mat a bàyyi xel wala tulqu bi ay ila tahlikati bu leen fekk loo xam ci nii seeni euh, dund mën na jaaree dog ngeen di ca dugg bu leen xaru loolu mooy bu leen xaru bu leen xaru nit ki wërta xaru doomu aadama wërta xaru waru loo xam ci nii yow da nga naan da ngay risque danaa ko def rek bu ma ci muccee mucc naa ci bu ma ci muccul euh, ñu xam ne yàlla bare déedéet loo xool war ngaa xool ba nga xam ne ni jàpp nga ne rafet nga jort ne maanaam euh, bu doon fukk la nga mën a jël juróom-benn wala juróom-ñaar wala juróom-ñett yee sax ba àgg ci juróom-ñett yee sax xam ne mucc ga moo gën a jege lor ga nga dog nga nga nga dog nga dog nga dog nga dog nga dog caa dugg waaye lii ñu gis ku ne xam ne bu doon fukk la maanaam euh, daanaka juróom-benn yi ci ci yoon ci yoon lañu la ñu la ñu la ñu des bari nañ ñoo xam ne nag la leen rakkat rakkat yi mooy xëy. gis koo daan àndal ñu ne tey ji ma nga Espagne wala ma nga Italie wala ma nga nangam ak àgg na bu ko defee nga jaay la nga yoroon daal di takk sa bagage wala tulqu bi aydikum ila tahlukati am na ci loo xam ci nii euh, la xam nga bu njëkk nit ki ci euh, lislaam nit ñi daana ñàkk ñàkk boo xam ci nii wala ragal ñàkk ragal ragal ñàkk daana tax ñu am doom rey doom ja tey doom ja daanaka euh, misaal moom mën nga koo dellusiwaat ci lii di am rek euh, nii nii rek ndax bari na ci xale yi yoo xam te ni jël nañ décision jël euh, pour jël gaal gi dem Europe tey jii seeni waajur ñoo leen di xoolee bët ba wala ñu digal leen ko wala ñu ànd ca ak ñu ànd ca ak ñoom te loolu day dëppook tere bi yàlla di tere waajur yi ne wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaqin nahnu narzuquhum wa iyyaakum bu leen rey seeni doom ngir ragalu ñàkk man yàlla mi nga xam te ni maa leen sàkk sàkk sàkk seen doom yooyu kat danaa leen wërsëgal ñoom doom yooyu dinaa leen wërsëgal yéen yéen yii di seeni seeni seeni seeni waajur kon mu doon euh, euh, beneen avertissement boo xam te ni yàlla mi ngi koy avertiser doomu aadama yi ngir ñu bàyyi xel ci am solo gu seenu dund am solo ak it euh, seeni waajur ndax donte it bu njëkk nit ki danaan am doom rendi ko wala mu euh, ray ko ci saas yi ngir ragal na bu ñàkkee du du ko mën a dundal waaye nag ko ak sax lii lii waaye euh, maanaam aay bi mën nga ko mën ko dugal foofu mën nga koo dugal foofu dugal dugal foofu digal sa doom wala nga mu tàggu la nga bàyyi ko wala nga war a waxtaan waxtaan ak moom wax waxu waxu moom ba mu jël décision boo xam te ni bakkanam da cee da cee da cee des da cee nga di ko wax wax yoo xam te ni dana ko jaral mu mu dugg ci gaal yi wala yu yu yu ni mel loolu waajur wu nekk war na ko moytu ci doomam bu dee waajur wu góor bu dee waajur wu jigéen nag ñoom ñaar yëpp ñoo ci bokk responsabilité ndax bari na ci loo xam te ni tey jii waajur yi responsabilité yi la damay dugg foofu sax ci problème mu responsabilité responsabilité waajur yi la ndax waajur yi. Euh, toujours am na ci ñoo xam te ni loolu la ñuy euh, xoolal sa morom mi xoolal sa morom morom sàngam xanaa gisoo sa moroom morom sàngam li mu defal baayam yóbbu na ko màkk xanaa gisoo sa morom sàngam li mu defal yaayam yóbbu na ko yóbbu na ko fii defal na ko fii ah xanaa sa morom nangam amal amal jom as gor boo ko toppee di ko xase lo xase loolu mën nga koo yow daanaka ko nga koo rey da nga koo rey sax daanaka da koy faral di wax yi bari na ci ñoo xam te ni léeg-léeg danañ yóbbu ab néew ca armel ya waajal ko ba suul ko dénkaan li ñu dénkaane si bu nu agsee li bari lool ci kër gi ak jooy yi bari lool fekk ña ko gën a jooy ñu ñu ëpp ay yëkkat ci ci kër ga di di jooy ki ki ñu denc yoon ñoo ko rey ndax am na loo xam te ni gor mësu mënu ko mënu ko mënu koo dundaale mënu koo dundaale bu boobaa nag euh, ña ngay wane nu ne ne dañoo am naqar te fekk daanaka ki dem ñoo ko yóbbu ngir euh, gaarawaale yu ñu ko daan gaarawaale ci kër gi wala bët yu ñu ko daan xoole wala wax yu ñu ko daan wax. jun ko jun ko jun ko jun ko jun ko jun ko yàgg a wax kon waajur yi am nañu responsabilité bu baax baax ci seen ci seen doom yow sa doom sax war na toog ba yàgg nga jékki-jékki woo ko ne ko mbaa yëngal li xew yëngal ni nit xale yaa ngi jël gaal yi maa nekkul ci sam xel adduna la ko fi jar nekku fi man mii di sa waajur wax dëgg yàlla digalu ma la ko ndax bari na ci xale yoo xam te ne tey jii lu ñu def tam leer na leen neexul seen neexul seen i waajur rek xam nañ ne duñ duñ duñ duñ duñ ci am duñ ci am ndam. duñ ci am ndam décision bu nar a jël bu ñu xamee ne neexul seen waajur rek duñ ci duñ ci am dama kon nag boo toggee ba jamono ji nga am doom joo xam ne mi nga am fukki at juróom jàpp ñaar fukki at jàpp ñaar fukki euh, wala xëy moom muy am yi di wax amul solo war nga toog ba nga toog ak moom waxtaan ak euh, laaj ko ne ko li xew ci jamono ji mbaa nekkul ci seen xel li xale yi jël fan yi waaye dañoo toll jamono joo xam ne nii dafa doy waar ndax njëkk cofeelu waajur ci doom moo ëppoon solo fuuf maanaam teraanga ji mën a jóge ci teraanga yi àdduna ji mën a jógee ci doom ñëw ci waajur léegi nag jamono dañoo toll jamono joo xam ne jamono ji dafa safaanoo dafa safaanoo ndax waajur yu bari tey jii maanaam seen doom am teraanga di leen ko jox moo leen gënal fuuf ñuy xëy di ko teg di ko di ko di di ko teg di ko teg bët loolu nag mbokk yi lu doy waar la lu doy waar a noonu. am na ci bu njëkk bu njëkk euh, doom daana tàggu waay juróom sax ngir tukki waxuma la tukki yu sori yi sax waaye tukki ci biir réew mi sax dañ ko daan def ñëw tàggu sa waajur boo dem dañuy am cofeel ci yow cofeel goo xam te ne nii boo leen woon ginnaaw rek seen seen rankoñ day day day day day tuuru tam leer na fa nga jëm ñaari fan nga fay def wala ñetti fan léegi nag da am euh, passeport boo ko amee rek sa boo ñëwee wan ko sa waajur xol bi day sedd ba nga xam ne nii maanaam te amagoo visa bu amee visa boo ko joxee fi ni daanaka guddi ga ci teg du nelaw ngir kontaan te fi ni ni booba aw naqar la war a am am na ci ñoo xam ne seen waajur yi boo leen wane ab visa ne am naa visa maanaam ay jooy leen def sax ngir mbégte bu ñu tollee bu ñu ñëwee ba tollu foofu nag nga xam ne maam euh, cofeelu njureel maam alali àdduna ëpp na ko ëpp na ko doole ba nga xam te ni jooy ya nga waroon a jooy booy tàq ko sa tàqali ko sa doom jooy yi euh, teraanga ja ngay séntu ci moom euh, moo ko doole. loolu suñ bi toll nañ ci jamono joo xam te ni jamono ju mat a taxaw seet seetlu la seetlu la jamono ju mat a taxaw seetloo ngi noonu te jamono ji toll nañ toll nañ fi ni ma ko waxee léegi bari na ci waajur yoo xam te ni muy góor muy jigéen seen doom bu amee euh, passeport rek fa la seen mbégte ma di commencé bu ñu xëyee na ñu tampoo leen fa tampoo visa France wala visa Amérique wala visa euh, benn ci réewu Europe yi booba maanaam euh, day mel na ñii moom yàlla dugal na leen àjjana na ngir mbégte. bu ñuy jooy sax duñ ko duñ ko duñ ko tey loolu lu mat lu mat lu mat lu mat bàyyi xel la eh, bari na ci it nit ñoo xam te ni maanaam eh, bu ñu jëlee gaal gi dafa am ku yenn ci seen bopp yi fanaan ci di wax ak ñoom toujours rek sa waay xanaa gisoo diw sàngam ma nga Espagne xanaa gisoo diw sàngam ma nga Italie foofu sa waay boo fa demee mooy mooy mooy loolu booy xëy fii nga nekk di foofu dara. dund gi ngay dund fi jare fexe ba convaincre waa ji yàq bopp bi te bu boobaa daanaka kooku moom bu dee yaa ko rey yaa ndax maanaam xel mi mustu nekk ci tukki bu jëlee décision tukki rek yow yaa tourné bopp bi boobaa daanaka yaa ko fekk ab jullit buy dund nga rey ko daanaka du su du ngeen soree te ku fekk ab jullit ku gëm yàlla kuy dund nga rey ko suñu borom tëkkoo na ci tëkkuwaay boo xam ci nii ku euh, bàyyi xel ayab alxuraan boobu daan wa man yaqtul mu'minan mutaammidan fa jazaauhu jahannamu xaalidan fiha wa gadiba allahu alayhi wa laanahu wa aadda lahu azaban aziman tëkku yee ci su borom tëkku dafa dafa bëri sax maanaam bu yemante fa jazaauhu jahannam rek day dafa do dafa dafa doy sëkk ab tëkk ab tëkku waaye mu boole ci ne xaalidan fiha bu duggee sawara si jahannama boobu dafay sax du fa jóge boobu ko waaye nag bu sa yemoon ci dugg safara jahannama sax fa naru faa génn ba dugg di di dugg àjjana dafa dafa dafa dafa doon mbugal moo xam te ni lu mat a musul la waaye waxadiba allahu alayhi yàlla da koy da koy mere wala anahu te da koy rëbb mooy da koy soreel yërmandeem waaye nag wa ahadda lahu azaban aziman loolu rek day doy na doy doy na doy na doy na am mbugal waaye bu ci yàlla tegee ne dana ko xaroo dana ko xaare dana ko préparel mbugal mu gën a metti loolu lu kon kun xam ne ne rey bakkan lu doy waar la lu doy waar la kon yow mi nga xam ne nii yaa fekk ki nga xam ne nii xelam nekkul ci tukki nekkul ci dugg jël jël jël jël gaal gi ngay yendu ci bopp bi ak ci xel mi di ci di ko di ko di ko di ko di wëlbati xel mi da xam ne nii responsabilité bu bu rëy bu rëy rëy yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa jël yaa jël yow mi nga xam ne ni ñu yàq sa xel mi it te jëfandikoo sa xel mu rafet moom nga xam ne yàlla doo jox jox na la ko nanga xam ne nii Euh, responsabilité bu bu rëy rëy mi ngi ci ci nga bàyyi bàyyi nga xam te ni nga xam xam nga ne waxi seytaan la lay wax ak lim lay wax xam nga ne gënul ci yow nga di ko déglu am nga ci euh, part de responsabilité yow tamit kon ni ma ko waxee woon rek euh, doyo di ngëm danga ko ci fekk ndax fa nga nekk dama damay toog ba yàgg ma ne ma ne nit ñi dama yàlla bal waaye li leen àdduna li ñu àdduna jaral sax laay wax bu ñu ko yàlla jaraloon danañ am yàlla am ci am ci àdduna ndax koo xam ci nii maanaam lépp lu ñu ne man mën naa mayee alal rek fi ne nii maanaam yow uh, moom uh, pare pare pare nga pour pour joxe sa bakkan bu fekkee lu ak njeber di maye la bu fekkee loo xam ci nii jaar ci gaal yi la te fi ne nii mbokk yi na ngeen xam ne. Eh, jaar ci gaal yi dem Europe wax dëgg yàlla ñi ëpp ci ñi ci yàlla dogal ñu dem fa muy réewum Europe moom am na ci yoo xam ne ni ci bari yàlla jox na leen teranga waaye du cee gën a 100 pour cent la réussite réussite bi du cee gën a pour cent la te nit ki jógewul Sénégal mukk di dem di tukki di wuti lu ëpp la muy yóbbaale ndax nit ki bu xasee am ngëm yàlla bu xasee gëm yàlla gëm gu wér. gëm nga jaar ci làmmiñam àgg ci xolam mu di ko dund wax dëgg yàlla wutiwul lu ëpp ngëm yàlla googu te bari na ñoo xam te nii maanaam tukki ngir sooy seen ngëm yàlla googu maanaam euh, dara jële leen ko dara jëral leen ko foo mën a nekk lu lu lu ak nekk foofu moom maanaam jóge fa nga nekk dem ci beneen bërëb ngir sàmm sa ngëm yàlla googu ak sàmm sa diine jooju maam euh, nii waa ne luñ koy luñ koy dégg nopp bariwul lu mu koy dégg ci biir suñu réew moom Sénégal Sénégal te bari na kuy limaale am amam te du ci boole am yàlla ak amu yonte ma ak am amul amuk diineem te am ba am jeex boo ci amee boo ci génnee am yàlla am diine doon ab jullit am am boo ko boo génnee leneen loo mën a am euh, wax dëgg yàlla dara desu fa ndax ku ne xam na ne dégg nañ ba tey alxuraan di wax ne inna lazina kafaru law anna lahum ma fi l-ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum ñi nga xam ne nii gëm yàlla bu xasee génn ci yow mooy ak kéefar ak ak kéefar moo fay moo fay des te ak kéefar ku mu nekk ci yow bu ëllëgee yàlla taxaw ñu wa ñu ñu xisaab say mbir nga moom àdduna ak li ci biiram lépp bëgg ko jox yàlla ngir mu doon sag jot ci sag dem sawara yàlla nen du du du du du la ko du la ko nangul kon ku ne xam ne kon ña aay boobu mën a see ci sukkandiku ba xam ne kon. gëm yàlla ak doon ab jullit àdduna ak li ci biiram mën waru koo waru koo waru koo mën a remplacer euh, te war nañ di bàyyi xel bu baax a baax euh, njàngaleem Sëriñ Tuubaa moom muy wax naan ci kun kaatiman bay doo ci mujj na mu naan laa tashtari dunya bi uxra yaa fata man baa anuuran biddu jaa fa sa yendamu yow camsi cam si nag bu ñu ko waxee mooy yow waaju baax ji bu ñu la bu ñu mooy bu ñu wax waaju waaju baax rek bu ñu la yow nit ku baax ki bul fekk àdduna bul fekk àllaaxira nga am ko ba noppi jaay àllaaxira ba tey njëg sa njëg la di ko jënd àdduna laa tashtari dunya bi oxra ndax loolu kat ku ko def yàgg kii may bëgg a wax yéen a yam muy man baa nuuran biddu jaa fa sa yandamu ndax dafa mel ni da yoroon ab leer jaay leer ga ba tey njëg mu leer ne daal ni lii mooy njëgu leer gi nga jëndi ko ak lëndëm bu boobaa da nax sa bopp dañ wala dañ laa nax ka la jaayu lëndëm ci njëgug leer kooku nax na la njàngale moom lu mat a bàyyi xel la misaal moomu it lu mat a euh, dellu la mbokk yi ci lu bare bare bare waaye. Euh, bokk na ci li ñu doon wax léegi responsabilité loolu ma ta bàyyi xel mbokk yi ndax euh, Sénégal dañoo doon ñoo xam te ne dañoo am culture culture mooy nit ñi dañoo bañ dañoo bare lu ñu bañ dañoo bare li ñuy bañ donte it li ñuy bañ lu bare bare bare jërtu bañ ndax léeg-léeg nga euh, nga bañ ay wax loo xam te ka lay wax maanaam boo xamoon boppam lam lay wax la ko wax ndax wër la ko wax lam lay wax tëru ko tëru ko tëru ci ba neexu ba kanam la ko la ko la koy teg. léeg-léeg da nga euh, nekk comme ni ma ko doon waxee léegi rek nit ñi bu demee ba waajur ñemee toog di xas doomam ngir ñàkk lu def te maanaam euh, ñàkk def dara bëgg euh, bañ def dara te yóbbu yóbbuwu ko nit léeg-léeg nit bëgg bëgg def dara loolu te doo am lu mu lu mu def wala muy góorgóorlu di yëngatu wax dëgg yàlla waaye la muy yëngatu ku ne xam na ne réew ma nu mu te yàllaay euh, xatal wërsëg yàllaa koy yaatal bari waa ne ko euh, yëngatu ci lu ndawa ndawa ndaw a ndaw yàlla ubbil ko ci buntu yi yaatu bari waa ku ci ku yëngatu ci yaatoo yaatu yaatu yaatu yaatu yàlla ubbil ko ci yàlla ubbil ko ci buntu loolu nag warut sax mukk ndaw li découragé bu leen découragé man loolu lay euh, conseillé ñëpp bu kenn découragé ni ko Sëñ Tuubaa waxe woon ci Nahju Qadaa'il Haaji wa man qaraa baaba wa lajja wa laj ku nekk ci ab bunt di fëgg te mu nóor ca fëgg ga bu yàggee dana dugg dana dugg dana dugg dana dugg ca biir muy li ngay def bu ko xeeb liggéey bi ngay def bu ko xeeb bu fekkee ab baykat nga nekk ci àll ba mbay ma bu ko xeeb bu mbay ma jeexee noor bi loo ci mën a def bu fekkee ci àll ba la wala ci taax gi nanga ko def waaye foo nekk rek na nga des ak sa ngor te xam ne dara jërul jaay sa ngor ndax jaay sa ngor bu la jara euh, euh, jaralee nga jël gaal gi da nga ñàkk sa dund yow perte sa dund dund goo xam ne yow yaa ngi toll ci ñaar fukki at donte it euh, bakkan bu nekk rek yàlla euh, fu mu fu mu yem rek yàlla yàlla yàlla yàlla ko fa yemale waaye doomu aadama bu nekk war naa sabab war naa sabablu sabablu loolu wurtu tax mukk nga jël xëy xëy rek dem euh, taalaab taalaam mam mam tàkk nga dugg nga nga nga nga dugg ca te mbokk yi nañu bàyyi xel ne wax dëgg yàlla am na loo xam ne nii boo ko deful ci sam xel rek doo mën doo mën a xam ne métti doo ca nekk ndax. nee nañ xaru képp ku ko mas def rek bala nga avant nga cee nga cee réussir bay bay bay dee maanaam rëccu nga ko maanaam danga dem ba ci biir gi tax nga nga rëcc ko bëgg bëgg bëgg bëgg caa bëgg caa génn waaw te <laughs> kon nag képp koo xam ne ni jëlee gaal gi war ngaa jékki-jékki xalaat ne yow mii kat ku dee nga ba noppi bañ tëral la ci jaat ba gas am pax ba dugal la ca ba nga xam guddi gu njëkk ga ba mu jàll ba mu jàll boo dellu siwaatee sa bopp euh, xalaat ne yow kat yaa ngi ni déewagoo da nga xam bu boobaa valeur bi sa dund gi am da nga ko xam boo jékki-jékkee xalaat ne yow boo sa dundu gi yemoon fii tey jii lan la say waajur di di di di yëg bu boobaa da nga xam sa dund yow ban importance la am ci sa waajur waajur yi nekk noonu bu ñu xalaatee seen seen doom ji tey jii bu bu xëyoon ànd ak moom dem robe ko tey jii ba dellu si wiitaay wi ñuy wét dana tax ñu di leen xalaatal xalaat loolu rafet di leen wax lu rafet di leen fu encouragé fuñ fuñ fuñ fuñ fuñ fuñ mën fuñ mën di fu fuñ mën di toll naa ci sànniwaale xeer nag sama mbokk jigéen yi ndax lu bari bari ci euh, coono yi góor ñi di daj Sénégal ci ñoom la waaye it sama mbokk góor yi dinaa dinaa leen sànniwaale xer ndax coono yu bari yi jigéen ñi di dund nekk ko ñun góor ñi ñoo ko ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo leen ko ñoo leen ko yóbbee. ndax góor jigéen ñi lu ñu def rek góor ña tax góor ñi lu ñu def it daanaka jigéen jigéen jigéen jigéen jigéen ña tax kon euh, waras na cee bàyyi xel bu baax a baax tubarkàlla da nga gis mag tiim rakkam di ko xas xas di ko xas xas yoo xamante ni tëru ko fenn tëru ko fenn tëru ko fenn da nga gis waajur woo xamante ni sa doom dana génn Sénégal sax dem ba ca bitim réew waaye yow saa yoo xëyee. bu la jotee téléphone mbaa yaa ngi liggéey rek nga koy nga koy nga nga nga koy nga koy laaj sa xel sax du du dellu mukk ci ne ko mbaa seen seen diine ji nga fa yóbbu woon xam ne yàlla rek yàlla yaa ngi yaa ngi moom ba léegi wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla yónnee te xam ne wala nga xamal ko ne ko adduna bi mbaa xam nga ne lu dul jaamu yàlla andi ñu fi wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni maanaam loolu responsabilité waajur bu le bu nekk la et puis nga toog ba yàgg nga xalaat sa doom wala téléphone nga ne ko sa réew moom nga nekk kat boo fi naree ñàkk sa diini ji nga fi indaale leneen loo fi am mën a amee jër jëru ko loolu ni waa ne waajur wu koy wax euh, doo doomam doomam te loolu mat a bàyyi xel la nit ki ni nga yittewoo mu am dara ci teraanga ci àdduna war ngaa yittewoo diineem jooju mu am ko mu euh, mu yóbbaale ko ndax bari na ñoo xam te ni ba ñuy jógee Sénégal yóbbaale woon nañ diine bañ demee ca réew mañ euh, gàddaay del dem fa bañ àggee fa lañ fa fa lañ ñàkk ñàkk ñàkk seen ñàkk seen diine am na xam ne ni biñ nekkee Sénégal mosuñoo jël cigarette sax di tox biñ génnee lañ tàmbalee di tox génnee lañ tàmbalee di mosum ñollu biñ génnee lañ tàmbalee sax di euh, ànd ak jigéen juñ tëkkul ah biñ génnee lañ tàmbalee mooy gu nekk rek ñu fal ko loolu nag euh, ngëm yàlla gu ñàkk dëgër ci ab jullit la ak it sàgganug waajur yi nga xam te ni wax dëgg yàlla am na ñoo xam te ni seen doom yi ba ban tukkee ba léegi mën na fukki at ak nangam wala fukki at ak juróom wala ñaar fukki ñaar fukki at te tey jii mosuñoo yëkkati mukk ab téléphone ne leen mbaa yéen ngi ngi góorgóorlu ci seen jaamu yàlla yéen ngi julli yéen a ngi woor seen diine maam di leen di leen bàyyi xel loolu waaye suñ yëkkatee téléphone euh, ba woo leen mbaa yaa ngi liggéey naka réew mi daanaka loolu rek la ñuy la ñuy boo yónnee xaalis gën ngay gën ngay gën ngay gën ngay gën ngay yónnee wala doo yaa fekk ne bu lay woo téléphone rek yaa ngi yaa ngi yor soxla soo xam ne ni maam yëkkamte woo lu dul mu am prox ndool bu mu noppee rek ba nga wax ko soxla soxla soxla soosa loolu waras na cee bàyyi xel bu baax daal waras na cee bàyyi xel bu baax bari na ci ñoo xam te ni sax donte tukki ni ma koy waxee ni ma koy faral di waxee man jàngoro ji dañ koy doonaale xale màggaale ko màggaale ko ndax bari na ci ñoo xam te nii biñ doonee ay xale nii liñ yàgg rêve rek mooy màgg ba doon ba doon ab moodu moodu tukki da nga koy ñaan booy ñaan ñaan yàlla yàlla naa yàlla yàlla yàlla defal ma ba tukki am tukki rek ngay ngay ngay ngay bàyyi ngay bàyyi xel jàpp nga ne sa teraanga moom yàlla mënu koo jaarale mukk Sénégal ba ba ba la ko xam ne moom mën nga koo ñaan ba mu nangu sa teraanga mu mu mu mu joxe la ko Sénégal da nga yaakaar loolu moom mënut nekk moom te da ngay def sam xel ci ne maanaam tukki moom boo demoon xëy xëy dem Espagne wala Italie wala France maanaam boo xëyee rek moom yow daa daa tek tekk nga moom te teraanga yàllaa ko yor ni mu ko mën a joxe nit ki biir euh, Sénégal ni la ko mën a joxe ci fu fudul Sénégal ni mu ko mën a joxe fudul Sénégal ni la ko mën a joxe nit ki biir biir Sénégal am na ñoo xam te ni tey jii mësuñoo Sénégal te ñàkkun dara am na ñoo xam te ni tey jii def nañ fanweeri at ci àll bi te amuñ amuñ amuñ amuñ dara loolu moom euh, ku nekk rek. fa nga dëkk koñ ba nga dëkk am nga ci koo mën a jël exemple nit gis nañ nit koo xam ne ba muy ba muy tukki euh, dafa bàyyi doomam muy doogu judd wala sax juddoogul doom jët màgg na ba am borom kër wala ba am soxna te gisul baayam mbokk yi loolu lu métti lu métti la lu doy waar la te bokk na ci inconvénients yi nga xam ne nii tukki euh, ànd na ak moom te nit ki nit ñi bàyyi nga xam ndax dafa bari loo xam ne ni ay valeur la ay valeur la yoo xam ne ni a gis bari na ci loo xam ne nii maanaam jege gi nga ko gi nga ko jege dana tax doo ko mën a gis ndax am na ci ñoo xam ne nii waajur yoo xam ne nii cofeel gi gi war a am ci doom sax duñ ko gis ndax seen doom saa yoon xëyee ñu ngi koy ñu bàyyi xel am na doom yoo xam ne nii cofeel gi war a am ci waajur duñ ko bàyyi xel waaye nag boo tukkee rek ci ngay ci ci ci ci ngay doog a xam valeur valeur valeur woowu valeur woowu euh, nit ki da nga am ay mbokk yu la jege ñoo bokkal ndey bàyyi ñoo bokkal bàyyi ñoo bokkal eh, say say say nijaay say doom nijaay say bàjjen say nangam nga nangam bu ñu demee ba cofeel googu nga xam te ni yàlla da koo jaarale ci deret doomu adama yi yëgatuñ ko ngir àdduna ak alali àdduna lu mat a xel la fi ne lu mat a bàyyi xel la Sénégal nag dañoo am ay nattukaay ay nattukaay nattukaay yoo xam te ni ci lañuy natt nit ki maanaam boo amee loo la yàlla dimbali ba nga góorgóorlu ba am xam am sa diine sàmm sa bopp am sa ngor boo yurul dala moom moom yow yow dañ lay teg bu ñu la tegee ci bala ci balance teg ka ka am àdduna am alal ñu teg ci balance yow bu baa ay eh, nangami gramme yu néew néew ngay ngay ngay peese wu yow yow borom xam-xam yow borom diine ji yow borom alxuraan ji ka nekk eh, ka ka ñi teg ci beneen ka am àdduna nag am alal nag ñu teg ko ci beneen balance ba muy doon ay kilo kilo yoo xam ne nii maanaam eh, nam lay watte sax day ëpp. loolu euh, nattukaay la yoo xam ne yàllaa ko nattoo senegal yi ñu ci natte nit ñu ci natte nit bu njëkk nag loolu amutoon ba euh, jamono di baax bu ñu wax nag dañ ñaan ni jamono ji yàqu waaye jamono ji moom yàqul nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi yàqu nit ñi yàqu ndax jamono ji moom ma nga ma nga ma nga fa mu nekkoon ba léegi waaye bu ñu demee ba fi ni tey jii nit ku mokkal alquran euh, yàlla dimbali ko ba xam-xamu diine yëpp mu xam mu xam ko mu xam ko téye ngorom sàmm diineem. wax dëgg yàlla nga mën koo jënd ki nga xam te ni maanaam xamul euh, faatixa ju ju set wi ci mënu ko mënu mënu mënu mënu ko mënu koo tari waaye lu nuy àdduna yor na ko mën nga mën koo jënd kooku loolu euh, ñun Sénégal yëpp ñoo war a nafaraat suñu bopp nafaraat suñu diggante suñu borom nafaraat euh, suñuy aada ak suñu cosaan suñu suñu cosaan ndax loolu suñu xamuñ ko woon ci suñuy bàyyi xamuñ ko woon ci suñuy maam xamuñ ko woon ci ña ñu jiitu ña ña ña ñu jiitu woon ña ñu ña ñu jiitu woon bari na ci. loo xam te ni it euh, problème mu complexe lay doon problème complexe lay doon ni ñu koy faral di waxee ndax it euh, sénégalais moom yàlla ko euh, nattoo loolu daanaka it loolu moom tabiaa doomu aadama la nat natiiru doomu aadama la moom moom moom moom moo mel noonu toujours rek da da koy dañ da koy dañ kumpa fi nii boo dëkkee ci àll boo xam ji da ngaa mel ne man mii dëkk ci juddoo ca mànd ba màgg mosoo gisee tubaab boo gisee tubaab da ngay da ngay mel ne ku te fekk moom tubaab ab doomu aadama ne ne ne ne yow rek waaye nag li nga dund ba na nga ni nga toll mosoo koo gis dana tax nga xaw am complexe boobu boo boo gisee façon bët bu ne nga koy xool da nga yaakaar ne it moom tamit bi judd ba toll mu toll te mosut gis nit ku ñëw rek bu ko gisee noonu lay noonu noonu mi ngi mel ne eh, ni ma ko mën a misaale yow mi nekk Sénégal te soo gis gaynde boo xëyul xëy gis gaynde gaynde da lay yéem lool waaye ka nekk ci parc ba. di liggéey ci gaynde yi moom gay gaynde du ko def du ko def dara maanaam euh, amul benn impression boo xam te nii gaynde gi dana ko dana ko jox doomu aadama lu euh, euh, kumpaam lu nekk rek non non non non non lay dem demee ci moom complexe boobu nag dañ ci wax lu bari bari ndax am na ci complexe yoo xam ne nii maanaam toujours fi ni nii maanaam dañ koo juddwaal di ko màggal ba nga xam ne dafa nekk ci seen xel yi ba nga xam ne nii maanaam ni ngi bëgg a rey nit ñi mi ngi bëgg a rey nit ñi yu bari bëgg fi ni nii boo gisee complexe bi mi ngi tàmbalee ci bu ñu wax bu ñu wax am na ñoo xam te ni bu ñu xëyee ba ne la ça va maanaam ça va ga ñu wax sax da nga xam ne kii moom xamul dara ci français leen bëgg français ak bëgg ak ak tubaab bi dana tax ñu jékki-jékki di la wax baati tubaab yoo xam ne fa ñu koy dugal par exemple heureusement ak malheureusement bari na ñoo xam ne fi ñu koy dugal maanaam bu ñu la ko waxee da nga naan ñii moom tubaab yi moom ña ngay ña ngay ña ngay ña ngay ña ña ña ah? rek ndax Euh, nañ ko war a waxee ci wolof xam nañ ko nañ ko war a waxee ci wolof xam nañ ko mën man man mën mën mën nañ ko mais complexe bi danañ bëgg daana tax fi ni ñu ñu ñu bëgg lu ñu wax rek euh, bu ñu xamee baat ba ci wolof sax ñu wax la ko ci fara ci ci tubaab moo leen moo leen ko gënal ñu xëy ne la sawa sawa moo la gënal ñu ne la asalaamaaleykum wala ñu ne la mbaa jàmm nga fanaane mbaa ndax dañ yaakaar ne boo ne leen mbaa jàmm nga fanaane dañ naan kii da ab kaw ab kaw kaw bu kawee ngi nii di sawaa ji boo ne leen sawaa nag dañu yaakaar ne yow moom ca ca ca digg taax nga jóge wala ca ca ca ca réew yi wala yaa gën a jamono daal loolu lu mat a bàyyi xel la lu mat a xel la ndax jàngoro la joo xam te ni jàngoro la ci waxin wi am na ñoo xam te ni waxuma la euh, mots yi nga xam ne moom la ñuy utiliser baat yi baat yi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy jëfandikoo waaye waxin wi maanaam expression bi nga xam ne ni ñu koy waxee sax dañ koy jéem a neexal da nga gis koo xam te ni maanaam lam lay wax maanaam mën na ko waxee lu ënd ënd ak benn kii waaye danañ ko jéem a euh, neexal ci waxinoo ba nga yaakaar ne kii moom maanaam France la juddoo wala ab tubaab ab tubaab ko jur fekk foofu ma nga juddoo ca kaw lay la lay wax kër ma demb wala kër ma kër kër njóg wala kër sàmba ah. a bopp gëm sa bopp ne yow ab kaw kaw nga maanaam li ma gën a neex ci euh, sénégalais yi mooy nii nga xam ne nii amuñ amuñ complexe mooy dama ne xis genre xis bu tarxee da nga leen fekk ñu xam français ba ba jeexal ko dictionnaire sax mën nañ mën nañ ko bind waaye boo toogee ak ñoom bu ñu la waxut ne eh, jàng nañ français rek doo doo gëm ne jàng nañ français duñ la wax mukk ba ba ba ba ba feeñal ko ca ba feeñal ko ca complexe boobu day weesu waxin waxin wi sax day weesu waxin day dem ba fi ni nii col gi da ciy da ciy da ciy feeñ lu bare bare bari col gi da ciy feeñ lu bare bari nit ñi fu ñu toll daanaka eh, col goo xam ne dañ ko dañ koy àbbe ci eh, tugal moo leen gënal sol loo xam ne ni ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo ko moom donte sax tiisi bi léeg-léeg ñu ñawee ko euh, ñu jënd ko Sénégal war ko ñawal seen bopp dañ ko jéem ñawee ñaw ñaw boo xam te ni dana dana dana dana bitim réew tuuti problème complexe kese la léeg-léeg boo fekkoon fii tey jii lu jaay loo xam ne dañu naan lii Sénégal gii la jógee lii ñu ne la lay jóge France bu dee jar euh, junni lay jógee Sénégal di jar ñaar téeméer jënd la jógee France moo la moo la moo la ko gën ndax da nga yaakaar da nga yaakaar la jógee France moo moo moo gën problème mu feebar la boo xam ne ni ci jaay dàll yoo xam ne dàll yi dañu naan dàll ah teg ci wér gi dàll yoo xam ne dañu naan la mad in made in euh, euh, italien wala yooyu da yaakaar ne dàll italien yi moo gën mu fuuf dàll ngaay fekk dàll ngaay moom mën nga koo yor fukki at te du def dara dàll italien yi boo dugg ci ndox booy génn fi nii mm, yàqu yàqu yàqu lay yàqu lay def problème boobu nag nit ku nekk war na ci bàyyi xel bu baax a naa ne euh, xëy na war nañoo gën a yaatal lu bare bare bare sax waaye danañ indi baax baax. waxiinu arab yi ni nga xam ne daan nañ ko waxee ci euh, tukki tukki am na njariñ tukki kenn kenn kenn du wax ne baaxul tukki kenn du wax ne baaxul ndax nit ki tukki arab yi dañ cee euh, joxe exemple lu bari bari te yàlla sax euh, bokk na mënees na ne moo ko njëkk a dig moo ko njëkk moo ko njëkk a diglee ndax famshuu fii manaakibihaa wa kuluu min rizqihi la wax dox leen ci wàll suuf si ngeen lekk ci wërsëgu yàlla wi mu ci mu fi def kon xam na ne léeg-léeg yàlla. teg la ci bërëb boo xam te ni bërëb boobu moo la teg na ne sa wërsëg ne ko fa fokk nga euh, yàlla si ba te seg euh, fa sa wërsëg na si ci sukkandiku kon pour euh, xam ne yàlla digle taxarab an awtaani fi talabil ula wa saafir fa asfaari xam su fawaayidi nee na na tukki ci réew yi ngir sàkku te tedd nga ak ak kawe nee na nga tukki ndax tukkikat juróomi njariñ yi mi ngi mi ngi ci boo tukkee juróomi eh, njariñ da nga ko ci jëlee ba ci njëkk mooy tafarruju hammin waqti saabu maisatin wa zuhdun wa aadabun wa wa soxbatu maajidi maanaam eh, mën nga ci amee eh, problème mu wuññi sa njàqare bu fekkee da nga amoon problème mu njàqare maanaam tukki mën na laa génne ci njàqare loolu ndax mën ngaa nekk ci euh, am réew am fa problème boo xam ne ni tukki rek moo la moo la moo la mën a mën a solutionné euh, problème boobu ci problème mu stress boo am wala problème mu loo bëgg faj te mënu ko faj hmm? euh, mën nga caa amee alal alal ji nga xam ne ni mu 90 pour cent boo xoolee wala 99 pour cent ci ñiy tukki daanaka wut alal moo leen ci yóbbu donte wut alal ji ay ayut ndax alal jooju te nga mën a jaaree. ba sàmm sa ngor sàmm sa diine sàmm sa euh, lu bare bare ci li lislaam digal nga mën koo def ci teral say waajur teral sa njaboot euh, da nga ko da nga ko ci mën a amee waxtu saa bu ma amee chatin mën nga ci amee ak dëddu xame ci àdduna ba nga xam da nga xam ne yow àdduna amul amul solo daal da nga ci amee ay teggin da nga ci taseeg nit ku nit ku nekk nit ku baax ku nekk mën nga cee taseeg moom te nit ku baax saa yoo taseeg moom rek mën nga cee jànge lu bare bare bare waras naa bàyyi xel it euh, wax ji nga xam te ni euh, euh, alimaamu Shaafi'i yi waxoon na ko ci xasidaam googu mu tuddee woon daanil ayyaama taf'alu maa tashaa'u nee na wa rizquka laysa yanqusuhu ta'anni wa laysa nee na wërsëg yéex a agsi gu mu yéex a agsi ci yow mënu ko wàññi waaye it bari coona mënta yokku sa wërsëg mënta mënta mënta mënta yokk mënta yokk sa wërsëg mënta yokk sa wërsëg euh, daa euh, <laughs> naa ci fàttaliku tuuti lu bare bare loo xam ne ni xëy waxtu wi yaatuutul maa ngi jéggalu nag xëy na bëgg naa ci indi lu gën a bare loo xam ne ni euh, Sénégal dama faa dem daaw jéeg maa ngi tase ci benn ceet bu ma amoon dama demoon noonu mais damaa toog rey jàpp ma bari na ci loo xam ne ni ñun tukkikat yi nekk ci àll bi ñoo koy yóbbu Sénégal ya nekk ci biir réew ma muy bari na ci loo xam ne ni affaire complexe la. imagine Touba Touba maam nan nga fa mën a jaay jaay taar jaay jaay taar di fa sol ay costume ak yu yu ni mel ak dëkk ba na mu tàngee léeg-léeg parfois léeg-léeg nekk ci aw xew woo xam ne sama benn waay boo doon tiital ma dem fa ñu toog ci néeg bi noonu waaye jekk-jekk dugg ànd ak soxnaam ma nga sol costume boo xam te ni damay non dama ko xool rek maanaam tàngoor yi mu tàng tàng man jamono ji ma maa ngi sol wooy faay tàngoor yi ma doon yëg waa dugg si costume boo xam ne nii costume bu comme ab tergal ter tal façon tal goo xam ne nii sol dàll yoo xam te ni maanaam dàll yem sol sax bokkatu an antu costume costume moom dafa am dafa euh, sol ak costume bi ndax ma nga sol dàll yoo xam te ni maanaam pantalon jean la la gën a àndal wala wala super sang yooyu la gën la a àndal sa soxna saa nga teg ci bopp ba loo xam te ni dugg saa mel na ku déggul wolof waa ji dugg gaa waa ji ñëwoon ci xew yi tàmbale ko laaj ana waa kër gi kañ nga ñëw affaire yooyu daanaka ci la moom bu ko la laaju sax maanaam ni li muy wane rek dèjà xam ne ñu ñu bari xam nañ ne euh, euh, ab tukki ab tukkikat la mais la ko la ko ko gën a euh, fa ko yàlla rusloo mooy ñett woon ci biir néeg ba mu ñu fekk daanaka ñu ci ëpp ay tukkat lañ te boo leen boo ñu fekkee kenn ku nekk yaa ngi toog sol sa bolog boo xam ne da nga yaakaar ne kii moom ci kaw ga la ci kaw ga la kaw kaw ga la jógee kaw ga la jógee bi mu nekkul lu toog di waxtaan ba yàgg comme laaj kii ne ko Espagne nekk kii ne ko nekk kii ne ko nangam ak nangam la nekk hmm? Euh, tukkikat yi war nañ di bàyyi xel bu baax a baax a baax la leçon yi nga xam te ni euh, waa réew mi mën man nañ mën nañ mën nañ mën nañ di ko di ko di ko di ko di ko ko di ko jànge euh, li ma doon wax léegi ne bari na ci loo xam ne ci bi ñu doonee xale bi ñu doonee ndaw ci lañ koy kii ndax it maa ngi fàttali ko jamono yi ñu nekk ci daara ja sunu sëriñ sëriñ Xalil Mbàkke di set ci sëriñ Saalihu maa ngi fàttaliku taalif boo xam ne nii taalifoon na ko jëmoon ko ci sëriñ Saalihu Euh, ci biir taalif ba ma ngi doon ñaan ñaan yoo xam ne nii maanaam da ngay xam ne ñii euh, seen xel yàgg naa nekk ci tukki donte it ñoom ay mag lañu woon waaye euh, ñun ñi nga xam te ni taalifoo dañoo neexoo nit ba ñu jotoon caa mokkal ay bayit maanaam mokkal googu ñu ci mokkaloon yóbbu woon nañu loo xam ne nii maanaam defoon na ko ci seen xel yàpp nañu fi ni maam koo tukkiwul rek mënoo am teranga ndax bokk na ca bayit dem waxoon ca biir taalif boobu mooy da doon ñaan ñaanal di ñaanal si sal naan képp ci nun na dëkke taax mu rëy te mu sol lu ñu daax te waa këram bu nu aña daax nan aña ca yi la gën a gën bokk na ci la ma xam ne bu ñu ñibbee nanu bu jógee ci daara ji ba am étage yàlla nañu am étage mooy bu ñu ñibbee nanu étage étage yu rëy ami paas yu lew a lew di dem France bokk ca gaa yi gën a gën nga day mën ne moom yow euh, xab woo mën nga caa jàpp ne maanaam étage ak euh, am am paas moom maanaam euh, dem France na ci li ma jàngate ne loolu moom bokk na ci li nga xam ne nii ci li nit ñi di bind it ndax mënoon na ko ñaane ne nañu am étage am euh, xéewal euh, te duñ dem sax France <laughs> maam te du tee taalifo taalifo taalifo taalifo jub waaye yow mi nga xam ne ni ab xale ab xale nga euh, di mokkal bayit yooyu dana bàyyi waale ci sax xel ne yow maanaam France kat boo fa demee rek da nga am étage am da nga da nga am da nga am page bokk na ci li ñu war a bàyyi xel yi ne nit ki alal moom du ca ne alal yi àdduna ji rek mooy alal ab jullit bu amee diine. bokk na ci Sëñ Tuubaa li mu waxoon Sëñ Tuubaa dane woon kanzil kitaab wal xadiis wal adab laa jamao fiddatin wala jamao dahab ma denc sama banque mooy alkitaab mooy euh, téere bi yàlla bi al ak euh, xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa ak adab waaye nag du ceeg ne mooy dajale alal wala muy euh, dajale ay wurus ak yooyu maa ngi jéglu baax baax xëy na ëppal nañ sax ci waxtu yu ñu mayoon ci waxtaan yi waaye waroon nañu ubbi téléphone yi it Euh, waaye nag wax dëgg yàlla li ñu war a waxtaane xajul sax ci benn ci benn ci benn émission ndax bari na lu ñu war a jàngat loo xam ne nii euh, war nañ cee gën a jariñu suñu bopp ndax bokk na ci li ñu waroon gën a jàngat sax maanaam euh, inconvénients yi nekk ci tukki ndax bari na ci ñoo xam ne sëñ bi seen i wajur ba seen doom yooyu génnee maanaam ñàkk nañ leen ci ci ci ci àll bi am na ñoo xam ne ni tey ji ñu ngi ci ñu ngi ci bitim réew waaye tey ji maanaam seen i wajur amalutul ñi amalutul leen njariñ ndax am am wut ba taxoon ñu doxoon di ko wut pour dellu Sénégal amatuñ ko tam des nañ fa ci réew ma lang lang ngoo xam ci ne amatu amalatuñ seen bopp njariñ amalatuñ seen bopp euh, diine amalatuñ seen bopp seen seen wàjjur ñu ngi ñaan yàlla musal euh, tukkat yépp ci loolu nag di jéglu baax a baax ci guddal gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu